mais su ma ñëwee su ma ñëwee ci sa ci ci sa demum prison bi naka la demee parce que Abdoulaye jub Khass nga jotee loon wala boog moom nga am ay kàddu yoo xam te ne sànni woon nga ko ci demum prison bi nu waaw parce que Abdoulaye Diop Khass laa amaloon problème moom laa sànni woon ay kàddu mais bi ma ko sànnee ay kàddu maanaam def ko deux fois trois fois ma wax lu may wax bi ma ko waxee pendant un mois wala quinze jours sax ci laa toog su ma gaalee benn jour rek. ñu woo ma téléphone ma alliance ma mu ne ma dañ convocation police Pikine quinze heures 14 heures 30 dem naa police ma demee fa toog falaa toog ba 21 heures moom muy doog a ñëw. yow durant bi fay toog euh, waxoo kenn wala kenn woowu la. bi ma ñëwee bi ma toogee noonu waxuma kenn fa toog ba moom muy ñëw ba moom mu ñëw bi mu ñëwee avant muy ñëw maanaam bi ma toogee ba benn heure bi dugg naa gis commandant bi mu interview ma laaj ma ma wax mu ne ma demal toog si biti xaar ko fa laa toog xaar ko ba mu ñëw bi mu ñëwee ñu dem bureau commissaire bi muy maam Arona Ba moo nekk commissaire pikin ci lañ dem bureau ñu demee bureau mu wax ma wax commissaire bi ne ma bula la dañ lay defeere ma ko ah mu ne ma waaw léegi nag ci laa sumeeku jël suma bagage yu nga xam ne moom laa yoroon daal koy jox ci poste bi sumi sama yëre dugg si violon bi. maa ngi fa dugg mercredi boobu ñoom ñoo la dugal wala yow yaa dugal sa bopp. non ñoom ñoo ma dugal. commissaire bi moo ne bu la baalu dañ lay defeere ci laa sum ci laa ci laa ñëw ci post bi mu ne da ngay sumee ko nga dugg fii ma teg suma séen. boobu moom jotul la baal. déedéet moom bi ñu waxee wax rek la ànd ak avocat taal oto bi dem. ci laa joxe sumay bagage samay dëbbas simeeku dugg si violon bi mais pendant mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi yëpp maa ngi foofu. police Pikine. nag bi demee ba ba lundi bi ñëwaat ci lañ tàppeel ma dem tribunal taxaw ñu bàyyi ma. Mhm. bi nga demee tribunal ñu bàyyi la yow mën na ñu téye la lundi ba ba lundi dellu si nga dem rek ñu tàppal la bàyyi la. waaw ah am naa suñ borom moo ko bëggee noonu rek suñ borom moo ne woon Ablaye Diop xaas sa dund dina la jaarale kaso mais après tamit. li ma bëgg a xam mooy dafa ñëw ne baal naa ko wala. noo moom bi bi may taxaw tribunal boobu fekk na mu voyage mu dem Gambie moom bi problème bi amee ma jàppee tey ci suba gi bi mu xëyee ci la dem Gambie. mais est-ce que nekkul tamit la bëggoon a yar parce que tamit téye la foofu benn une semaine jékki-jékki bàyyiwaat la noonu kenn waxu la dara leer tamit. non man jàppee ko yar quoi parce que lu ma ko jàppee yoon moo doon def liggéeyam avocat moo ma atte moom ma bàyyi kon damay jàpp ne dañ ma war a bàyyi rek bàyyi ma parce que man saagaw ma musuma génn ci ba saaga parce que yar nañ ma mais damay wax li nga xam ne su ma ko waxee ñi may déglu dañ xam li ma wax lan la mais li ma ci li ma ci li li ma ci man man après seetaan naa yenn vidéo yi après dafa mel ni da nga dem euh, biir biir xaas ci boppam nga dem toog du la poser question mais après frigo yaa ngi toog ñoo ngi lay laaj di la xoj mais euh, bëgg nañ nga wax mais nangu loo wax lan la woon. waaw ah, parce que comme lu may wax rek ma defoon interview boobu moo nekkoon suma arrangement man parce que semaine jour bu may def interview boobu jour boobu waat nañ ma ba ma war a dem police convoqué waat nañ ma ma war a dem police jour boobu may def interview bi biñ ma wooyee pour ma war a dem police ah man jël naa suma téléphone ma woo Ablaye Diop xaas ma ne ko ak ah, kilifa gi maa ngi siyaare mu ne maa ngi delloo siyaare ma ne ko man dañ ma waat léegi pour ma wuy ji police mu ne ma waaw man man man sax maa ngi police moom. waaw mais man xam naa ne su ma demee. du yoon dañ may tàppel defeere ma wuy juuma dama jël dama dama jël lu ma am suma gaale pour dem sama yoon. ok léegi nag ci yoon bi mu woo ma téléphone dama ma yow la ñuy xaar ma ne ko duma ma ñëw police. waaw ma ne ko du ma ñëw police parce que xam naa su ma ñëwee lu ma fay fekk. Mm-hmm. mu ne ma léegi lenn mooy am bàyyil maa ngi génn maa lay woo bi ma wooyee ñu waxtaan bi ñu waxtaanee dem naa këram def interview. non waxtaan bi ngeen dem këram def interview dala la proposé à ce nga ñëw setal sa der wala nga setal ko ñu bàyyi noonu mu sedd wala. en comme lu ma wax comme suma yaay dana bu ma soreeti ci wax jooju te man moom laa am bugguma ci sori dem naa këram def naa interview nee nañ jox na ma 3 millions jox na ma terrain mais man xam naa yàlla xam na dem naa këram def naa interview jox na ma xaalis nag parce que nit lu mu la jox si ñaxam wax dëgg yàlla war nga ko gërëmee may na ma xaalis na ma paas mais comme gars yi somme bu ñuy wax jox na la troit millions ak terrain waaw comme daal lu may wax nañ ci bañ sori jox na ma 3 millions ak terrain man xam naa moom xam na yàlla xam na. Mhm. kon daal su ma déggee wax ji daal muy laa Diop xaas moom boo ko déggee danga koy poussé ne. waaw parce que après amul problème nit ku baax la. àdduna amul solo suñu borom moo ne woon moom moo may jaarale foofu jaar naa fa damay sant bu baax baax di ko nuyu au passage parce que après déggante waat nañ déggante waat nañu déggante waat nañ woon na ma waxtaan nañ bam ndeysaan bam ne ma dinaa la defal lii ak lii ak lii moom ci gémmiñam kon xam nga dara amul solo àdduna amul solo di nuy commissaire maam Arona Ba parce que bi ma jugee foofu dafa ma woowaat taaj ma bureau waxtaan ak man conseiller ma jox ma conseil yoo xam ne ne ma yow kilifa nga kenn du la recevoir si kër si bureau laa la yóbbu mu nekk geste bu rafet maa ngi koy nuyoo passage muy maam Arona Ba. Mhm. jàng naa si àdduna daal am na lu ma si jàng lu bare bare bari lu bari bari bari sax. ñu bari nag dañ la woon dañ la woo fay la wala boog dañ la woo nangam la pour nga mën koo daal waaw loolu dégg naa ko samay mbokk woo nañ ma sax pour <laughs> jox ma si xaalis bi ñu la jox <laughs> waaw ñu bëri dañ may woo alliance jox ma si xaalis bi ñu la jox billaahi may leen ax ah xaalis bi dama koy dégg rek comme comme ni ngeen koy déggee noonu laa koy déggee waaw.